bismillah asalaamu aleykum dégguma dara asalaamu aleykum waa dëgg bi asalaamu aleykum Guy Marius Sagna asalaamu aleykum waa sama gaay nuyu na maire parcelle nuyu le grand maire Barthélémy Diaz nuyu la conférence des leaders nuyu ñëpp gis ngeen gars affaire bi daa neex a lijjanti Macky Sall seen kër ba mu daj moom doo nga des ci nguur gi goroba ba Abba Mbaye daaneel na ko rakk ja waa Géejawaay daaneel nañ ko moom dong dong dong dong cunnuŋ moo des. kaay ma wax la solution bu yomb la. le pouvoir ne se négocie pas. te foo fekk nag nit ku naan non man duma tapet man géré la tapet la. Pape Malick Ndour seen ministre boobu. <laughs> waay déglu leen. kaay leen ma leen solution bi rek sa waay dé déglu leen ma leen solution bu ndaw dama ne gis nga ñin niñ ko defee na ko ñëpp defee noonu wallaahi billaahi wallaahi wa taalaahi li ñuy wax gëmuñ ci daara ñin avant local yi ba léegi ñu ngi utiliser ay nit ñun réseaux sociaux rek lañ leen di gis way fii kenn du ko taal waaw fii kenn du ko taal xoolal ku ko nar taal waaw ku ko nar a taal ta kenn du ko taal ku ko nar a taal ku ko nar a taal ta ba léegi déggu ba ta <laughs> dañuy fen rek <laughs> man ba ma juddoo ba léegi yeewi askan wi bi ma juddoo ba léegi yeewi askan ba tey man de géejawaay man réseaux sociaux rek laay dégg fa laa leen di seetaan de ñu naan non ñin xoolal géejawaay fii xoolal ñin gis nga suñu fii kenn du ko taal ku ko nara ta man may taal rek taal naa leen local taal leen député gars yi jékkali leen président li ñuy wax ke muñ ci dar gis nga ku nar a def dara doo wax dara te doo def dara man daal géejawaay fee leen rek laa doon def gaa yi ñëwee guddi gi ne ma waa mais mbër gars yi nu muy demee suba ma ne non garaawul bàyyi leen bañ génn rek ñu génnee ma dem ba jublu benn mairie rek dugg ci biir mairie door leen ba ñuy bëgg a dee ñu porté ma plainte ma xëy jour ba ca topp waa mais mbër gars yi itinéraire bi nan la ma ne nañ leen dox rek dañuy dox di dox di dox ba ma romb buntu kër directeur ne fa ciix bombardé leen door leen ay xeer duma leen dem ñibbi gars yi porté ci lii naa ko jàpp ci lii naa ko jàpp ci lii laa ko jàpp bam jeex affaire bi amul benn secret li Barthélemy Dias wax loolu moom mooy dëgg buñ fi nekk di wax naan ay marche lii ay gis ngeen le 16 ñun moom incha allahu rabbi dañuy dem barke Muhammad le 16 le 16 le 16 le 16 le 16 le 16 le 16 le 16 le 16 le 16 le 16